ñak duma wor dama ñak ak ñaan xalé yi nak ma leen jur suñu mën nuro fuñu neewa bu ñeewa rek waam la alal du leen taxu juk nak alal man taxu noo jóg am métier yow nak fi nga dugg bu soobe yalla yalla dana la jox teranga jox na la ko takanam la jëm ta ñak moom rew teewul nga doon kilifa de nga ni ma la ñàkk moom réew teewul nga doon kilifa man ngaa yor réew mi bu ko yàlla dogalee waaye bu ko dogalee taraanga doo tàggu moom mukk inshallah, allah te foo jëm mbooloo mi topp ci yow xale yi nag nee naa leen lépp loo xamante ni bii sañ ngeen ko fi na ngeen ko def mooy dëgg Cerno jëkk a joxe fii deux cent mille may la baas bi jóg ba léegi ay baas di ci tegu ba léegi xaaj di ci tegu mais yow yaa jëkk a dugg ci kër gi def fi teraanga bu rëy mais man xaalis du tax ma goree di sama doom ba goree dee moom la mais doon na ko ci man seen nga sama dégg la ma wax foofa seen nga sama loxo yi dama fekk may wut lu ma jox xaalis as gor day gore waa as gor du ni waa ba noppi ni déet politique rek lu ma la jox lekkal boo demee ko la nekk sa nem kooku saay saay koy def ñaanal naa la ñama la doon ñaanale ma wax la ne cerna na bul gaawtu ñàkk moom réew teewul nga yor taranga ju rëy fo jëm jëm la li dara ëpp ko taranga te juro len jëndoo leen mais taranga la may li yalla nako yalla jëme kanam sey bu tontu mana nag mu andal moy moy ci ngi ni waaw kii mu andal mooy abib kam waaw ya xana nga turum waaw dégg na tur bi do Malick Ansar la do Malick Ansar doomu Malick Ansar Malick Ansar waaw kii mooy Habib Kane. waaw kii mooy Ndeye Diagne mooy xam naa bu baax yéen ñaar ñii nangeen ngeen taxoo bu baax ma ni wut leen ko ba ca fin ba askor du daaj du daayel su ma doon daayel duutuma samay loxo du mel nii mais damaa xam ni xaalis jeexul saa booy liggéey gis xaalis. su ngeen jàppee yàlla yuusu. lan du sama baay dëkk man maa kër instant. mais man sama goro sama goro sama goro candidat la mais je suis libre de m'en ak la petite sœur de ma femme il est candidat mais man je suis libre je suis indépendant je suis autonome je suis vacciné man maay seet li doy ma def ko lima doy nak moy lima la xone man xawma la xawma la de waye jëmm ji lu mu dugg dinañ ci dugg lolou la fof la mën a yemal merci beaucoup merci beaucoup de your ba tey nag bu ñu waxee ñoom ñëpp ni Thierno ba tey changé dégg nañu changement légat yi ñu koy wax defuñu ko fi ñu ngi wax carnet yi ñu koy changé di ko ñaan ba tey amu fi léegi nag pour gàttal ko yombalal ndax bëgg la moo tax man ni nañ taxaw cinq minutes ñëw itam ñu dugg <laughs> wan leen ni leen yëg nañ ko Habib Kane li nga ko santoon suñu diggante ak moom jàpp na ci lampe bi moo ko taal moo ñu may lampe bee ci mbedd mi taxaw lampe bi moo ñu ko may yéen ñi may laaj Habib Kane dama yóbbu leen woon réseau bi Habib moo ngi ñu ngi nii maire yaa ngi nii to ñoom boobu ba tey man ag ñoom lii nag laa bëggoon nga gisante ak ñoom voilà kii sama nijaay la ceeb Mor wuyu ko waaw Mor ça va la tàndumbe suba ba tey ñoo ànd ñun ñaar bëgg la moo tax ñu nangu xale di leen téye su ma nee déet sax ñu ni waaw tànneen nee ngi nii maire yi ngi nii kee sama yaay la Khady Diallo kii mooy sama yaay Khady Anne moom yéen a bokk tukkulool la yow rek la bëgg ak <laughs> ma ñëw ànd fee yow mënoon mais yàgg naa fi ñëw te dama fi ñëw mais du lii moo ma fi indi parce que lii waruma fi indi yaakaar naa ni Youssou Mbaye euh, na bi si yàlla si yàlla ku ko xam-xam ni sama morom la ñoo kafandoo màggandoo ñoo defandoo lépp euh, keroog bi mu gaañoo kenn njëkkuma fi euh, la ma fa doon def bi yaayam di wax ko defal sama frère la sama xarit la yaakaar naa ni jur yi ñu ko fi jur moom la ñu fi juree yéen ñi fi taxaw ñi samay yaay la ñi samay sœur moom tax gis ngeen soxna si taxaw léegi nee na ma sama yaay moo ko yóbbu mu sëy moo ko njëkk a jëngandal or mu takk ko ci noppam mu ngi nii toog xam nga ni kii mën na maa jur waaw bu waxee loolu tey ba jaral ko ci rankoñ moom amatuma leneen lu may wax boobu di leen wax ni nag euh, euh, liñ jëm xam ngeen ko ranu leen nag mooy fi gën a métti ci politique ci cees parce que Idrissa Seck fi la dëkk ñëpp di ci déem dugal ay lu ci bokkul mais man li ma gëm rek euh, moom laay wax moom laa président no léegi may tooñ nan man bi ngay dem Tivaouane lii man Tivaouane laa jógee sëñ Babacar laa jógee man sama lépp sëñ Babacar laa koy nat waaw te gëm naa ni dañuy gën a Idrissa parce que ñun sax amatuñu combat ak Idrissa Seck parce que Idrissa Seck moom déjà gagné nañ ko parce que du campagne du voté kooku moom ay mbiram sëñ Babacar lamal na ma ko tegal na ma ko ñi ñuy waxal mooy ñi nga xam ne ñoo nekk suñu kanam muy les soi-disant et cetera ñooñu nag ñoom duñu ay détails ci dëkk bi duñu morom duñu moromam luy ceerno am na lu ko góor gi wax léegi lu am solo mën ngaa bañ nekk président mën ngaa bañ a nekk ji yilif ñëpp mais kilifteef yàllaa koy def ci nit te loolu suñu borom defal na wax ba pare te loolu rek am solo fi mu ne boo bëggee jiitu da bëgg a rek mais bu dee kilifteef mën ngaa yem sa bopp kon dañuy ñaan suñu borom loolu ngay sàkk pour jiite pour mën a dimbali askan bi ñu war ci ànd ñun ñëpp ñu am ci ndam te ndam loolu moom yaakaar naa ne karawaan bii ngeen seen nag Tivaouane la déparé sëñ Babacar ko jiite ndam rek jërëjëf. ñu jaar kër ga dañu ñëw kër ga nii gannaaw audience yi dañ ko dafa xawoon jafe may dem Dakar pour des urgences programmé nañ ko ñaar yoon bii mujj bi mooy jeudi bi après ñëw leen samedi démb. mais samedi démb ak campagne bi aussi c' était très compliqué. ni yàlla def rek moo gën. waaw noonu la li yàlla def fii ci kanamu njaboot yëpp. waaw comme man ni ma koy faral di waxee rek. amuma ñu ngi doog gisante ñu ngi doog a joxante loxo mais maa ngi koy liggéeyal parce que dama gis ne. ñun ki ñu soxla candidat bi ñu soxla moom la Thierno Alassane ci ngorom ci yarom ci dëggoom ñu Sénégal politique bi dafa yàqu wax naa leen ko keroog bi ngeen nekkee fii. politique gu Sénégal dafa yàqu moom wax na ko léegi politique la boo xamante ne ñun ñu waxatuñu dëgg ñun ñi jubatuñu ñun ñi leen neex la ñuy wax mën nañ sax dig asamaan si pour nga votel leen mais man Thierno euh, maa ngi ko nawee depuis mu nekk euh, naa xawma ma ndax fàtte nga ko déet ben problème nga amone ak état Ablaye wad ak ñom Farba sangor ak yooyu. ma gis muy défendre intérêt Sénégal bañ bëggé jël je crois que souf aéroport bi di jaay. mu taxaw opposé wu lu ne mënon nako ci fekk bobu la ko xol waxuma ne mbokk ties la mais man naw ko benen bi moy Thierno bi mu nekké ministre yoro na ministère bu mag bo xamanteni ni ñëpp a ko soxla ci Sénégal bokku na ci ñent ministère yi fi gëna a mag waaw biñu bëggé biñu bëggé euh jël intérêt Sénégal

te Thierno mi ku amal njëriñ Sénégal la ku amal njëriñ askan wi la kon ku xam vote tey voté boo ko voté loolu nga xam ne war nga sénégalais waaw man du meer moo tax may wax ak moom mais feneen laa ko séentu te yàlla na la yàlla yokk jàppale li nga bëgg yaa xam yàlla na ko yàlla defal Ousmane Mandiang mooy le président Thierno Assane Sall ànd ak le président Habib Kane la jeunesse thiessoise yéen jeunesse rondu dugub bi ron leen pour ziare war ron leen pour doo jow tamit pour nuyu si leen yéen les jeunes yéen ñi nga xam ne tey jii yeneen avenir ëllëg Thierno Assane Sall mooy ki nga xam ne que tey jii musul war waa Sénégal moo taxoon mu bañoon signé lu ko doon signé loo tey jii nag bu ko maire bu ko waa Thiès joxee maire Thiès ah ca moom tamit bokk na ci ñi nga xam ne ñoo engagé pour jàppale Thierno Assane Sall donc ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñu leen di xartu Thiès di xëy waa Thiès bés bu ñu ko dénkee maire bi du mun a war waa Thiès. ba xol yaa ngi feex mbay ajna ko mbok Thierno Alassane Sall mënul ñëw ba boor bii te nuyuwul waa kër Coumba Diagne ko mbok Thierno nee mi ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant mooy Thierno Alassane Sall ñu fal ko ci maire Thiès loolu moo tax Thierno Alassane Sall bu ñëwee ba fii il faut que mu taxaw nag saafonte ak yéen il faut mu taxaw nuyonte ak yéen ndax loolu rek mooy li nga xam ne que moom moom fi indi tey jii. Coumba Diagne di suñu coordinatrice yag liggéey ci biir RV di liggéeyal le président Thierno Alsane Sall ñu taxaw fi ci buntu kër ko wat di jaale ay doomi sen sen papa mi fi dëdd bu yagul momit it ku Kumba di fàttaliku tamit suñu mbokk ku Diagne mi nga xamni dañ daan and di liggéey liggéey bu rafet ci biir RV tay bu ko fi suñu borom bayyi won kon tay ji li ñuy liggéey mo ak moma koy liggéey kon nak jaal nañ leen bu baax président Thierno Alsane mu ngi leen di nuyu di len ziar mënul dugg Route de Mbour te taxawul buntu keur Kumba Diagne ziyaar leen fàttaliku ki nga xamni mo moo doon responsable am di coordinatrice am doga jall jàll ñemewul won jall ta jaaru fi kon nak ay ay da nuyu nañ la president cierno nuyu dafa juk ànd ak muy la président Thierno Alassane Sall ànd ak ki nga xamante ni mooy le président ànd ki nga xamante ni mooy rakkam Habib Kane président réseau d'appui mais Adja tey jii seeram day daw boo gisee convoi bi nga xamante ni le président Thierno Alassane Sall def na ko nga xamante ni moom du ñu guleet fi mu jaar fi la war a jaar ndax def na fi lu ne randu leen Thierno Alassane def na fa lu ne léegi di fii la ko njëkkee baax ñu ànd ak le président Thierno Alassane sal mu ñëw fii nga xamante ni nee naa ko fii boo fi jaar fi réer ndax fi nga xamante ni ñi fi dëkk xam nañ yaay kan xam nañ sa ngor xam nañ sa compétence rawatina nga jël doomi dëkk bi doomi gox bi le président Habib Kane président région d'appui ànd ak moom ñu ñëw fekk fii nga taxaw nag fii mooy jaloore jaloore équipe la boo xamante ni ci réew mi ñëpp ko bàyyi xel mooy jaloore yaa tu yaa tout nag boo ko déggee yow sa loxo nga ca ndax sa loxo mooy ngor jom fulle deug ci ngay dox doxo ci tapale le president tierno san Sall ko and ak yow ci deug nga and ak mom dem ko ànd ak yow ci deug nga dem bako ndax ba ngeel njël big ba ni la signer da ngeen duma signer lu leerul lu leer rek lay signer kon competent bi nga am ñun ak yow ba ci biir maire bi inshallah mbolo mi ñu ngi leen di nuyu yeen ñepp ku ci ne sa tour ak sante vraiment di contane ci déplacement bi ngeen def euh, yeen euh, Saliou Fall la représenté daal presque jaloore fii fi man may koñ bi dal Saliou Fall moom boo ko xamee ku ni Saliou Fall Thiès moom ci sport moom ñëpp xam nañ ma ci ci ngor ak ci fulla ak ci fayda du ñu ñun fii moom doxewuñ daray caaxaan ku ngeen yegg si fii nag yegg si fi ak sunu frère Habib Kane kii dafa nekk exemple ci randu leen kii lu mu nekk waa randu leen nekk ci ci lépp kon su nekkee ci dara ñun ñëpp dañ ci jàpp na Alassane Sall mi itam ñëpp xam nañ ko ku ko xam-xam ko ci ngor ci fulla ak ci fayda yàlla dafa def yéen ñi ànd ñëpp dafa sama waay la ki ànd nañu presque quarante ans ñoo bokk fi ñuy dal màggal guddeeg bëccëg subaa ngoon kii c'est mon frère mon petit frère maa ko forme saw muy football atomique rawaan mii ñoo nekk ndawoon Malick Kéré muy góolu en tant que deuxième góol di sama moroom di sama xarit kon bu ngeen ñëwee fii ñëw ngeen seen koñ yàlla na yàlla dolli sutura daal li ngeen di jublu yàlla dolli leen ci sutura ngeen am ci ndam ñun daal ñu ngi ci ginnaaw Habib mii moom lépp lu mu ne ñu ne ci parce que ñun lu mu ne mu nekk ci jërë ngeen jëf limay may wane ni Thierno Sarr réew mee ko ñor liggéey yi nga xamanteni bu njëkkee ndëkk yi loxo warna talal loxo ndax ca joxe yi njëkk yi ca la joxe ki nga xamanteni bu yaxana na amee ci dëkk bi momo kova bi ñi ñoom valeur ci né kova bi ni ñom ni ñom gëdd ñoo ne ci kova bi waaye nak tay ji fi mu tew moy chef le président Habib kan mais Adja li am solo modi li lii Thierno di def dafa jafé freiné soto oto ñëw taxaw nuyu leen lambi ak ñom yow yoro animateur yoro soto rek yab sonorisation ci kaw di dem di animer fat fatt nit ñi ci nit ñi di wax ak ñoom di lambi soog ñoom di leen nuyu ndax loolu rek a dara xam ni jom rek mooy maye dara xam ni fulla rek kooku mooy le président Thierno Alassane Sall tey jii moo ñëw biir Randoulène pour saafonte ak waa Randoulène ànd ak ki nga xam ne tey jii mooy doomu ndeyam ji rakkam mi Habib Kane moom la Thierno Alassane Sall ñëw di ñëw pour waaw waaw le président Thierno Alassane Sall waaye ni mu ngi nuyu njabootu chef de quartier di nuyu aspiram njabootu Faye Ndiaye yëpp ñu ngi leen di nuyu ndeysaan suñu doomu ndey Cheikh Diouf di nuyu Modou Fall li muy woy dama doon loo xamante ni lu doon dëgg la parce que doomu aadama loo koy woy lu ne day fekk mu doon dëgg président Thierno Alassane Sall mooy nuyoo noonu fi nga xamante ni mooy buntu école Malick Kéré Diaw ak yi nga xamante ni grand yi ngorangook grand yi nga xamante ni ñoom lena ñoru leen lu dul seen njaboot ak yàlla lu tax may sant yàlla dañu ne woon Sénégal ak Thiès kenn mënu ci politique xaalis dañ ne woon Sénégal ak Thiès yi kenn mënu fi politique boo yorul xaalis

tôt ou tard dina la waaj wala kii bu du loolu sax ndamu élection yeeg ñàkk ndam élection nekk ci dëgg rek ndam la parce que jii nii ñun waa Thiès yëpp xam nañu ni bon bu ñu newee Thiès mburoog sow dinaan ñu nitu Thiès au moins tey am na ñoo xam ne taxaw nañu pour sigir raaya wax ni di loolu mooy Thiès am déet mm-hmm. donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci vraiment fii nañ fi ñëw nag muy metti lool ñun fii yàgg nañ fi ñëw ah, mais man mosuma jéem a doxal ak yi mos naa ko wax fële ci Dakar ba ñuy évaluer élection ma ne gis naa benn waay di fi joxe xaalis ci waa parti au pouvoir bi ma ne kooku bu amaatee dinaa ko dénoncer man le même jour police parce que élection kenn waru ci dugal jour boobu xaalis waxuma waa réew mi de ñi doon contre réew mi pour ger leen te boobu maa ngi donc fii daan na métti ci ñun gars yi di ci dugal xaalis def lu leen neex te teewul waa randu leen ak waa waa waa Thiès jàpp ci en 2017 ba ma démissionné dama campagne campagne bu métti ñoom rawaan fekk nañ ko ñeneen fekke ci législative yi dama campagne campagne bu métti def ci lu ma dese ci alal pour que Thiès bu ko APR gagner, bu ko Benno Bokk Yaakaar gagné parce que dama gëmoon te loolu laa waxoon ci meeting de clôture bu ñu defoon Grand Thiès ma ne benn benn façon la mun gagner, centre Malick Kayré wala Aliba wala Thierno Siré parce que liggéeyu ko defu fi loo xam ne war na gagné benn façon la ko mun a gagné alal te jàpp naa ne waa Thiès waruñu nangu mu gagné Aliba wala Thierno Siré Elimane wala kii parce que bu boobaa dinañ ne mais comment est-ce possible

de Benno Bokk Yaakaar parce que bulletin wu Benno Bokk Yaakaar mooy dem du bulletin wu réew mi du bulletin wu Idriss Seck du bulletin wu Diatara du bulletin bulletin wu Macky Sall ak fasam bi daw bu ko gañee mooy ñun lépp lu fi jaar ci diggante gi lépp lu fi jaar ci diggante gi ñun questionné nañu loolu ànd nañ ci lool loolu def naa ne Thiès warul nangu loolu donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci yéen vraiment bëgg ak am fit ci yéen ñi ngeen jël décision yi ngeen jël Cheikh Binta ak ñeneen Kiné ak ñenn ñi fi nekk ñëpp décision yi ñu jël pour vraiment ren ren ji changer xar kanamu Thiès. man nag fu may daanale mooy nekk naa ministre gars yi gis nañu dama daan wàcc terrain bi romb fii dama ni mais dal yi ñu fiy def ay jante di ci teg kii même bu dul man ma maire du sama koñ noon naa ne koñu Idi la wala koñu kii la wala bu ma ko defee ba pare ñëw taxaw. mais dama ne gàcce la ci cees gars yi di romb di gis ay gent wala sax bu fa kenn daanoo te man gis naa ko xalaat naa ci xalaat naa ne war nañ ci jëm dara bu kenn gaañoo damm ñu war mu addunaam yàqu ci ay million ay millions pour faj ko am naa ci responsabilité donc ñun nekk ministre ñàkk nekk ministre dañ jéem ci lu ñu mën ci cees maire bu ñuy wut du pour am ñu bëri ñu ngi wut mairie pour Macky Sall nommé leen wala DG wala di len cëral ay marché xam ngeen gaay yi fi wër yëpp di def 90% wala ñu conserver sen poste yi ñëw négocier pour am ko en tant que ministre man lool taxuma ci dugg xam ngeen ni j'étais ministre j'étais DG buma bëggon tay négocier ak Macky Sall def ni ñom def dem dugg ci mburoog soow bi nek Gloria wala yooyu damay dem mais dama lool lepp ngir lan parce que dama japp ni que Sénégal ñun waru ñu nek des marchepieds ou tubaab yi wala ay famille ay famille comme comme li sa kaa yi doon waxee fay saal wala yooyu waruñu nekk marché wu kenn dañu war a tekki suñu xale yi tekki ba ñu nekk ci chômage rek di nekk ci ndóol gi yenn gars yi yor ay milliards di jënd ay jet privé wala jet officiel wala jënd ay maybach bag ñu ñu toog ci ay banque yi nga xam ne kii fii waroon na nekk place bu yaaññ bu dimanche jotee gars yi daje ci affaire yu yaaññ état bi organiser ko correctement suñu école yi nekk école yi bien suñu boy yi di jàng non pas ay quatre mais ay deux par loolu war na mën a nekk. lool moo tax ñuy xeex ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax jërëjëf. Thierno kenn du ko naax. Thierno kenn du ko naax. salaamaaleykum Penda Kase Penda ka ka nuyu ka nuyu sa waa ji. dama day def doom la ça va bien. ça va naka soxna Dia. da laa ñëw. non non non. salaamaaleykum. na ngeen def. salaamaaleykum waaw sax na ngeen def sax na ngeen def ziar nañu bu baax président ay jërëjëf yaa booy yaa booy na ngeen def. ñooy sant yàlla bu baax. macha allah macha allah bii booy dégg ok. ay soxna ay na ngeen def c'est bien. origine yëpp nag nan la ëllëgee nii moom. waaw. de ver, bem se Alassane Sall. un digne de lu ma leen mën a wax ci Thierno. ku jub ku yaru ku dëgg tukulóor la dëkk jàkkee tukulóor li ma leen mën a wax suñu njëkk Macky Sall bu mu bëggee def la maguy nommé ko ministre de l'énergie bi mu naree sàcc suñu alal Thierno dana ko du nii nii la lan la def moom mu ni Macky Sall contrat bi ñu négocier baaxul nañ ko revoir Macky Sall bañ en tant que ministre nga xam ne ay 6 millions ñaari oto ay kër tous les intérêts ñu la koy jox mais Thierno dafa taxaw mu ni man booy bu leen booy bu leen yuuxu pare wu ma taxaw mu ni man Macky bëgguma million bëgguma oto bëgguma kër li ma gënal moy Sénégal ñii lii ñu ñu fay baaxul nañ ko revoir nag négociation yi Macky Sall bañ Macky Sall am na lu mu def ci diggante bi bi maamam gaañoo xam fu mu jugee ay côté Bakel yi di ko jéem nax jaar Thiès jaare naa sa maam mais Thierno Boy c'était là Thierno kenn du ko naax Thierno kenn mooy seen fii du neex Wally Seck ku ko bañ sa fii du neex ba xol yaa ngi feex ba xol yaa ngi feex Bahol yang yaa ngi feex mbay mbaa xol yaa ngi feex mbaa xol bay, ngi feex man sama xol bi dafay neex mbay di Maria Sy jaajëf ana Mama Sita ama di su ma Mama Sita incha allah morceau bi may sama sister sama Kankou ñi fi teew ku ci nekk maa ngi lay nuyu waa R101 ak waa R102 di nuyu bu baax sama famille sama papa sama yaay ñoom ñi ma bàyyi ma dugg si lii parce que man maa ngi doog a dugg si politique bi ma si duggee léegi bàyyi nañ ma ma def ko te amuñu si benn problème di nuyu bu baax aussi sama borom kër nekku fi mais dafa ma soutenir bàyyi ma ma def lii aussi maa ngi koy nuyu di ko remercier di nuyu aussi sama équipe bi may àndal ñoom ñëpp ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu mënumaa lim su ma limee damay juum donc maa ngi leen di nuyu bu baax di leen remercier parce que lii yëpp ñoom la ñoom ñoo ma jàppale ci suba ba léegi tooguñu ak tamit pré campagne bi yëpp ñoo ngi ma si doon dimbali porte à porte yi et tout sonnuñu benn yoon maa ngi leen di nuyu bu baax sama waa équipe ak sama sœur bu baax maa ngi koy nuyu. te ni moo waral bés bi muy Thierno Alassane Sall muy toog ma bëgg ngeen tàcc ko bu baax yéen ñëpp ngeen tudd voilà Thierno. su ma ñëwee tey di wax si moom dama siy sawar parce que nit ki nga xamante ni daa def loo xamante ni lu rafet la ci Sénégal kooku boo koy jaay da nga ciy sawar ki neex a jaay moo xam ni ki nga xam ni amul benn tâche politique dafa jafe nga dugg du Google tàppe nit gis ay yoo xamante ni def na ko lu mu luubal kooku neexu la faral mais dama leen koo ñaan ku am connexion na dugg Google tapé Thierno Alassane Sall nga xool ba xam di nga mës a gis benn tâche ci moom tàccul leen ma ko bu baax suñu leader bi dafa ñëw sama koñ defal ma fi ay lampe financer famille loolu nga xamante ni commencé na ko depuis 2012 mooy lekkati def na ko fii ci R100 def ko feneen foo xamante ni sax du R100 Thiès bi yëpp def na fi aussi électrification bu baax njëkkeewu ko fi mbuurkaat la njëkkee bu ñu amee ndox am courant Thierno Alassane Sall la te Thierno Alassane Sall bi mu koy def ministre la nit yi sol seen t seen casquette pour une pour pour pour wane loolu mu ni leen du ma ko def parce que lii sama liggéey la en tant que ministre kookoo jara tàcc ma ñëwaat aussi si li nga xamante ni mooy volet social bi tey Euh, euh, euh, hôpital régional def na fa loo xamante ni liggéey bu rafet la te dama ko témoigner parce que man maa ko doon yóbbu bi ñu koy def fii ci affaire coronavirus bi. def na fa social bu baax loo xamante ni lu ma magnifier la bëgg ngeen tàcc ko aussi bu baax. ma ñëwaat aussi si yéen militants yi parce que sama wax du si bëri temps bi ñu am bëriwul dafa guddi ma bëgg ngir yàlla juru vote ngeen voté par raison bañ a par cœur loolu mooy ma wax ko si olof. bu ngeen demee si isoloir yi nit kii sama dëkkandoo la maa dëkk moom te dëkkandoo bi deram setul ngir yàlla bu leen ko voteel Thierno Alassane Sall du sama dëkkandoo mais ki nga xamante ni ku ñu jox ay millions nga bàyyi ko ndax sa jëriñu réew kooku amoo fayam voté leen ndax kii léegi dinañ indi suñu bulletin bi wan leen ko ñu gën leen a leeral naka lañuy ñuy te tamit aussi maa ngi remercier bu baax euh, suñu tête de bi est mooy Moustapha Sène ma bëgg ngeen taaj ko mu jóg bu baax mu présenté wu. kii lu tax may wax si moom tey kii mooy le maire typique c'est le maire typique pourquoi parce que moom moo mooy nit ki nga xamante ni kii siiwul kenn xamu ko Sénégal balaa ñu laa mën a fal maire nga nekk nit ku siiw wala ko am dara kii c'est un enseignant un enseignant en retraite ma bëgg ngeen tàcc ko bu baax parce que kooku moo dund ci biir dëkk bi dund social dund xam lan mooy social ki nga xamante ni yaa dund ak ay xale di leen jàngal di leen tette ba retraité kooku ñam nga luy metti ñam nga lu sonn xam nga bu baax famille sénégalaise yi lan la ñuy dund ma bëgg ngeen tàccul ma Serigne seen bu baax te jàppale ko te voteel ko vote yi ñaari yoon la da ngay voté sa zone est voté waat ville muy Thierno Alassane Sall ak monsieur Serigne Sène maa ngi leen di nuyu bu baax kàddu yi amee lu si dëng maa ngi siy jéggalu li ma si jublu woon mooy wax wax bu rafet yéen ñëpp ngeen kontaan merci beaucoup. ñiy dund defal na ñi nga xamante ni dunduñu defal na ñi nga xamante ni mooy la génération future kon teraanga yooyu noonu no Alassane Sall defal ñu ñun bu ñu gindi ko ba xam war nañoo xam ni kii du maire la soxla ñun ñoo war a daw ba tas lijjanti lépp ni ko Thierno ba nga ñëw ñun la jëlal lii. parce que dañoo bëgg nga jàppale ñu ndax Thierno ki nga doon valeur yi nga yor jëlal lii nga redressé ñu parce que ku nekk xam na ni Thiès fi mu toll nii bu ñu bëggoon mu jag jag na bu yàgg ay at munoo yor 17 ans Thiès sax saaxee ko ci dee sa askan lu ne nga joxe ko mais xoolal ku mel ni Thierno Alassane Sall fu ñetti nit toog mu ñeenteel leen xeebul kenn wàcce boppam woyofal boppam bëgg lu dul ndam dafa am ñoo xam ay nitu ndam lañ

alhamdulilahi rabbi alamin jëmm ji neex naa jaay macha allah sàll lam tooro buru gede depuis 2012 gusuloo wooñu foo jaar tey boo fa jaaree suba ñu ne Thierno ku gore la da ñoo yombal suñu porte à porte bu nga ni kooku moom dafa set macha allah man ko jot tukulóor la kooku mooy Thierno Alassane Sall Sall ngaari lam tooro dugg nga R100 toj ko rajaxe ko yàgg na yaa yow indi avec yi yaa indi lamp yi yaa yeggale tali yi yaa ngi defar social te loo ñu deseel desaloo ñu dara Thierno Alassane Sall desalu ñu dara ñun ñoo ko deseel kon nag Thierno ñu ngi lay ñaanal ndam li ngay wut le 23 yàlla nga ko am ci kàttanu Seydina Mouhamed yow yaa sagal waa Thiès yow yaa bëgg waa Thiès yow yaa oyof da nga oyof ni mbaxane bu la neexoon nga dem Dakar lu fa say résidence wala nga jënd fa say kër di fa noppalikoo waaye loo am indi ko Thiès loo am ne guddi guddi Thiès Thiès no lekkul dara bàyyi Thiès gasoil sax Thiès la koy jëndee dana ma ko jëndee Dakar kon kon nag kenn Assane Sall ñun desaluñu dara man de Abou Dieye depuis maa ngi ci Thierno xam na ma bu baax Idrissa Sakho moom ma yóbbu ci moom ak tànku mbaañ mais rëccuwuma ko ba muy lancé mouvement Dakar maa ngi ci salle ba toog Grand Thiès même chose waaye Thierno sigil na ma sagal na ma barki alxuraanu karim ndax rusloowu ma politicien bu fi ñëw daaw bu fi ñëw dafiy rusa ñëw ren jii de ndax lu ñu wax du ne nekk sa tur ak sa sant lu ñu bi ci loxoom Marème mi nga xam ne moo dalal tey le président Thierno Alassane Sall à savoir que ni madame doomu gox bi la ni ngeen ko teeroo wan ngeen ni ci gox bi la bokk soxna euh, je pense que ni mooy essentiel nit boo dëkkee ci bërëb danga ngaa ci saw soo xewlee sa bis na ko nit xam ndax heure bi jigéen ñi ku ci nekk war na laa fekk nekk sa kër toppatoo sa jëkkër maa ngi seen ñi ci kanam ub seeni doom kon yaakaar naa ni soxna mi woote jaral na leen ko euh, di leen wax ni ñun ku mel ni man kees ku ma xamul xam na ku ma xamul dégg na ma man social rek laay def moom laa gëm bu doon politique rek moo ma taxoon a jóg heure bi fekk na am naa farfarloo mais dafa am lu ma boole ak le président Thierno Alassane Sall sànq soxna am na yu mu ci junj xam nga nit booy bokkee ak moom yoon foo dugg ñun la jaar na fa la nga fay def ñun la def nga ko fa wala ngay dem fa di def moom mu ñëw di fa def kooku war ngeen a mën a bokk yoon yaakaar naa ne le président Thierno loolu moom ma booleeg moom waaye li ëpp solo jotaay bi tey ànd naag moom ñaari jàngat am naa ko ci ay kilifa yoo xam ne lañ seeti benn bi wax naa ko fenn waaye benn bi fii laa koy wax mooy bu leen kenn foog góor gi nee na njabootam bu leen joxee ku nekk deux mille francs ndax ngeen dem toog ne faralu ma ko damay lekk deux mille mais Thierno laa faral li ngay def gëmoo bu leen kenn dajale ndax ñaar téeméeram wala ñeen téeméeram la le moment venu le 23 incha allah bu neexee yàlla bu Thierno gagné 2000 walla junni dootu fi jafe ndax boobaa lekk ak naan dina yomb courant ak ndox dina yomb et je pense que seen est l' objectif. yoon jël nag ma ànd kook moom man mën naa ne ñu bëri xam nañ ma ci dëkk bi li may wax rek lu ma mel ginnaaw yàlla ak yonent bi ak samay waaju Serigne Babacar Sy la man Serigne Babacar Sy moo ma defar Serigne Babacar Sy moo ma booleeg moom. moo ne woon Senghor bu la kenn falul moog Serigne Fallou ñu fal la le 23 bu ko kenn falul Serigne Babacar Serigne Fallou dañ ko fal kooku loolu laa bëgg waa Thiès xam dama ne jarul ñuy wax ñi gars yi yor nañu ay oto yoruñ dara dama ne man mi muy àndal te teg ma ci wetam du ma moroomu ñi nga xamante ne ñooy xëccoog moom rawatina ak moom. kilifa gi ci nekk ci moom yàlla def na ko ci moom nit mënatu koo dindi mu jiitu bañ a jiitu du ko teree doon kilifa mais nag waa ji wax am na solo bu bàyyee kilifteef. bàyyi léppam dem toog day reyante ndax askan bi na ko askan bi jox limu moom na ku nekk jël li nga moom dem indil ko ko jox ko ko te xam ni dafa bàyyi li mu moom pour askan bi et le moment venu gis nga bis bu ñu ko seetaanee waxatuma du ma sax ne bu ñu ko seetaanee day mel ni goxuma li may wax gëwuma ko ndax man suñu cortège tey Tiwaawan laa ko jëlee ànd ak moom ñuy wër boobu ba léegi barki Serigne Babacar Sy dina am ndam le 23 janvier jërëjëf jërëjëf président. public ba teg sa loxo xooloo yàlla xooloo say mbagg xool sa bokk xel sa bokk boobaa da ngay jël big ba signal la la neex waaye da nga ni dox leen ñu dem nit ma ñor Cees sama ñor askan wee ma ñor jullit ma ñor nga am ngor lool am jom lool xam di nga juddoo du doomi nit bu baax du doomi yaaram kon monsieur le maire bu jamais la parole jërë ngeen jëf parce que gars yi dañ fi toog boobu ba léegi ma bëgg leen ne jàkk ñu bëgg ma ne jàkk te bëgguma gars waaw donc borom gars yi nañu teg nii tuuti mbokk Hersent maa ngi leen di gërëm di leen sant ndax lii ku mu doyul dara du la day vingt deux heures vingt deux heures jot na te yéen a ngi fii ba tey demoon naa nag demoon naa ba xaw a xaddi ci Hersent demoon naa ba xaw a xàddi ci waa Thiès demoon na ba xaw a xàddi ci Sénégal lu tax ndax dafa am président de la république ak gouvernement ak nit ñoo xam ne liñ fi nekkee mooy xool ñuy ànd ngir ngor xool ñuy ànd ngir dëgg ñu jéem a xool ñu ci ñéew doole daal di leen ger wala xoxatal leen wala jënd leen ñu daal di bàyyi. képp ku nekk r xam ne am na ku ma fi doon àndal soxlawul ma tudd turam mu di koo xam ne jàpp naa ni buñ ko bàyyi woon ak sagoom bàyyi kook ngoram bàyyi kook ay pexeem kon mu ngi fii tey te fu mu nekk fii xelam a ngi fii te loolu dafa bëri mbokk Macky Sall ak ay ñoñam fu ñu ko defee ci biir Thiès Grand Thiès genn wàll ñam fa daan àndal cee bu dee wutal naa leen liggéey ñu ne leen bu ngeen ànd ak Thierno Sall ñu dàq leen bu dee ñu ngi ci yoonu am liggéey ñu fexe xoxatal leen ba nga xam ne dootuñu sax ñeme ñëw ci suma kër te ñu ma jàppoon leen ni comme doom wala rakk wala jarbaat am ñoo xam ne dañuy xool koo xam ne papaam policier radié la woon 87 ba léegi munoo am xëy ñu ne la boo bàyyee Thierno Sall ma jàppe ko comme doom fayal la jàng ànd ak yow depuis nga nekk lycée depuis ñu nekk opposition ñu xool la ne la kaay ñu signé le poste pour nga war Thierno Sall te loolu ñi ma toogal ñi xam nañu ñan laay wax bu ma ñëwee r am na ñenn ñoo xam ne gisuma leen fi damay ne lu war a tax ñu gën a xeex Macky Sall ba jusqu'au dernier suuf mooy lu mu bugg a jël ay doomu gor defaat leen marchandise defaat leen jaam parce que simplement dañ la recruter benn ministère nga nekk fa di liggéey ñu tiital la nee la boo continuer di ànd ak Thierno Sall dinañ la jëlee ci ministère bi mosuma fi ñëw te ànduma ak kooku te yow nga jël ñi nga xam ne waruñu mukk bokk ci politique muy ay magistrat ana Cheikh Issa Sall ak politique magistrat la bu defee politique déli la def muy politique te dara fekk ko ci nga jël ay inspecteurs généraux d'État ñu lay political kooku moom duma ko dudd sax sama xarit la waaye mu ngi politique fële wetu waalo dund juñ doy na ci borom wala ñeneen kenn ki sañ ko tudd tudduma ji ay magistrat nga transformer ministère économie et finance yëpp ak parti politique APR parce que ministère économie et politique kenn daaw fa politique ministère des finances directeur général des impôts politicien la directeur général solde politicien la directeur chef de service sax bi fi nekkoon Thiès ak fenen ak fenen dañuy politique sañu ñu ñak politique dem nañu ba ay gradé di politique di laxatu di organiser di financer ay meeting di laxatu voilà rew mi nga xamné ne Macky Sall moom la bëgg yobé lol tax dina defal mention spéciale gor yi nga xamné depuis bala alternance ba 2012 ba tey ñu ànd pouvoir ànd opposition ñoom Abouba ñoom Mbaye Sy ñoom Ndeye Diop ñoom Pape Dioum yëkkati na loxoom yow ko ci <laughs> gaa yi nga Dey Yacine euh, Kulim Dioum Mamadou Rawane nga xam ne moom moom moom dafay opposition ba dem opposition Gambie <laughs> ak ñoom Ousseynou Dabo ba pare ñu opposition fii ak gars yi ñoom ñoom Jibi ñoom Ami ñoom ñëpp ñoom Aïda ñu leen di gërëm ñoom Kumba Añ ñu leen di gërëm di leen sant dëkk bi ñi bëgg a gore xam ngor ñu ngi ci des ba tey mais li war a tax yéen ku nekk ci yéen tey ci loxo rakkam wala magam wala yaayam nekkoon nañu dem jële fi Macky Sall parce que li mu bugg a dugal Sénégal yàq jikko yi d'abord yàq jikko yi d'abord dangay ngay toog am wari bu sonné sa portable ñu ne la madame tel moo la wari vingt cinq mille ñu naan merci fekk boobu dangay ngay gën a dóol ndax 25 millions d'accord da ko fay ci école bu baxul c'est une école bi ndax jaar na yoon ndax amna ay toilettes yu bax ndax amna électricité bu bax ben douche mo femme r100 ndax gis ngeen sen bop ci projet PSE yu bakissal di wax 10 milliards de lepp 10 milliards de lepp dix milliards yooyu di ngeen ci fay seen bor comme ni ci sénégalais bu ne di fayee borom ci naka parce que parce que mburu bi dina gën a cher dina gën a ti cher ceeb bi dina gën a ti cher diwlin bi dina gën a ti cher bi di gën a augmenté foofu xaalis boobu lay dajale di ci tabax ay TER di ci tabax ay stade di ci tabax ay Dakar Arena

waaye doomu aadama joo xam ne gis nga ni fi nga tooyee ba wow fa du foofa da ngay fexe soppi tànk li ma lay li may wax nag mooy waa réew mi fukki fan ak fukki at ak juróom ñaar ñu ngi ko topp réew mi ñoom duñu sax campagne dawuñu sax campagne ndax cees waa Thiès bu ñu newee waaw waaw la bu ñu la yow la ñuy woteel yow la ñuy woteel fukki at ak juróom ñaar Idrissa Seck du ngeen mësuleen leen ko gis fii ay ñooñam musu leen gis fii day toog ñaari at tegul tànkam ci dëkk bi du dem fenn toppatawul dëkk bi waaw bu boobaa bu leen mbuur rawee est-ce que war ngeen jooy tey mbuur dafa raw Thiès parce que budget wu mairie Saly budget wu mairie Saly trois milliards la lu teg amul benn mairie Thiès un budget ou 1 milliard. Boumot. Boudoul, maire de ville. Bon, bon, les nient mairies, c'est un budget 3 milliards et quelques le comme Sali. Madame, bon, bon, les Sali, Mbour, à Gandiga, nous sommes pratiquement ben de clé, nous sommes ben commune. Tay, raouna c'est un budget mungé 7, 8, 10 milliards. Raouna nous tiens. Tiens, amoul khay, Mbour, la tiens, c'est un de taba taba. surtout jeunes yi amatul espace Mbour moo ëpp espace Thiès foofu la gars yi di dem di wut ay kër ak yooyu man nag bokkuma ci bokk awma kër Saly awma kër fukki at ak juróom-ñaar ngeen di jàpp gars yi seeni mbir di gën a baax te bokk na ci li gën a baaxal seeni mbir luy gën a delloo Thiès ginnaaw ndax jël domaine industriel

dafa faire dafa ay investissement faire domaine industriel ba ñu bëri dañuy entreprises. taxawal ay entreprise mais suñu gars yi fii Thiès nan la ñu def 2010 boobu Idi moo nekk maire de ville Yankhoba Diattara nak di kon remplacer di assurer intérim bi mom Idi mu def lu mu gëna a mën mooy tëddi Sandiara wala tëddi Paris dañu séddoo domaine industriel u Thiès séddoo domaine industriel mo manam bëgguñu Thiès am industrie xalaatuñu Thiès amuñu pexe pour Thiès am entreprise wala am benn usine bu fi taxaw ndax seddoo domaine industriel loolu crime économique la te nañ ko seddoo encore moo yéesati ndax dañ ko def séddale bukki bii bukki bii njuur bii di demba wala ma sàmm ñu ne bii jatara bii soxnay jatara boobu nag moo gën a duun deux mille quatre cent soixante mètres carrés bii garde corps Idrissa Seck maa ngi këyit yi de lu may wax nii bii goro Idrissa Seck bii assistante Idrissa Seck domaine industriel loo xam ne ñëpp a ngi xeex pour mu am seen dëkk domaine industriel tubaab bi defoon ko fii

pétrole Sangomar bi commencé amana Kaolack suqaliku ñun nak bu pétrole gaz bi demee kaw Saint-Louis moo nar Nous avons ak Kayar ñun ñu gëna nous ci tax war nañu taxaw élection élection pour mairie Thiès élection pour place de Thiès ci Sénégal pour lolu antu il faut Thiès une place bu mu am Sénégal Thiès musul déllu gannaaw ci Sénégal ndax mairie bo xamné Léopold Sédar Senghor ba mu gannaaw ba mu jógee Joal mu xeeb ni Joal nekul mairie pour moom Thiès ki la ñu nek maire bobu sax Joal nekkagul commune pour dire les choses exactement Jean colin ba mu toll woon ci dolé ci Sénégal Thiès la ñu def mairie mais tay Thiès ñan ñoo bëgg def nek maire Thiès ñan ñoo bëgg nek maire Thiès ay dealer politique ak dealer économique

kooku bu demoon ci pays bu sérieux bu demee Guinée gee wala Niger gee nga xam ne tappale politique bu am Sénégal amugu fa sañul taxaw ne day nekk maire sañul khalaté yëkëti millions yu mu yëkkati di distribuer mais ñu japp Thiès sañul dem Dakar né daf ku melni mom amul Dakar né da fay nek maire wala Mbour lutax

six mille cinq cent bu baax xam nañu dàq jàpp bi comme lu mu wax dàq jàpp dàq jàpp bi kooku six mille cinq cent lay laaj am koo xam ne bu génnee ñu ne ko boo génnee carte wa euh, RV carte république des valeurs boko génné ak bulletin benen ak benen bo démé voter ci boko génné ñu jox la 2000 mu nangu. té 5 ans 5 ans lo xamné digënté bi yar nga ci juroomi poulet du pays wala fukki poulet du pays 5 ans ngay jaayé ce bulletin ce kàddu 2500 jaayaale ci sa dom jaayaale say dëkkandoo jaayaale ci lu né mbokk Thiès mbokk Sénégal duma guddal mais ñun ñëpp xam nañu jàngoro bu ñu laal fi ma tàmbalee. foofu laa ko foofu gis nga boo demee dund naa ay dëkk yu bari ay Niger yooyu waaye façon politique bu yées bu nekk Sénégal amul fenn jël ay ñoo xam ne yàlla moo leen boole comme ki ma doon tudd au départ jéem a fexe ba nga xam ne bu ñuy dox ci mbedd mi sax dañuy raser les murs ngir lan ngir xam nga ni yow danga danga da nga ndóolloo sénégalais yi ba nga xam ne koo ci ku ci am liggéey dana ko jaral sax lu ne parce que bu ñàkkee liggéey bi boo moytul dootul amati occasion am liggéey ba ilaa yow mi din lu muy dawal Jakarta ak yooyu nga teg sénégalais yi loolu te nga waroon xeex fexe créer ay emploi may sénégalais yi chance fu ñu amee liggéey may sénégalais yi chance fu ñu fu dund yu yombee nga créer pauvreté ndóol gi metti bi nga xam ne ak ñàkk xëy bi nga xam ne ku ci am xëy wala koo ci dikk xëy

ak borom këram di taxaw ci balkon bi di ñu déglu dimension spé way juram borom këram mu ngi xam na moom way jur ji ak borom këram aussi bi ko may comme ni mu waxee mu politique di def mention spéciale doyen bu nekk ci tribune bi nga xam ne depuis 16 heures mi ngi toog ak yéen ñi ñëpp fi may daanelee mooy comme ni ko woykat bi di waxee duma ma war Sénégal ba ilaa yow diin ndax ndax ndax ndax ndax xam ngeen xam ngeen lu tax président de la république dafa jàkkoor jàkkaarloog lions yi nee leen bu ngeen duggee ci terrain bi da ngeen war a def seen kéem kattan te ñuy ñaanal lions yi ndam. mu ne leen da ngeen war a dem dem ba jeex moom fu ñu ko waral fu ñu ko laajoon mu dem ba jeex mooy bu ko tubaab bi teg buggee teg loo xam ne dëppawul ak intere Sénégal mu bañ. lolu mo gëna am solo sax ka match de football fu mo waron dem ba jeex moy ba sénégalais yi dénkee lépp jox ko ay garde corps jox ko salaire bo xamné à vie dina am salaire plusieurs millions jox ko kër jox ko lepp mu wara taxaw ci place sénégalais yi wara taxaw ci problème sénégalais yi pas chaque jour nek ci lo xamné day dello Sénégal ci ginnaaw zircon bi dafa am ku ci jël ay milliards gaay yi gis nañu trace gis bank bu mu jaar gis lepp tay dafa dem di jappalé Macky Sall bobu tangi ablai Wade la won naka lay jappalé gaay yi faw mu génne xaaliss bi campagne électorale moy xaaliss bi ngeen gis ci mbedd mi ni muy tuuru tang yi ci dëkk bi amna ño xamné nak ne ñuy waré Sénégal moy dig ni dañuy and ak tierno Sall and ak mom ba ci bi ci politique la ci camp ci élection yi lay wax de téléphone ne kër goudi. contrat bu ñu signé woon ñu ñoy ñooy par exemple pour ànd ci zone Thiès est bi ñu déllu ci ci ginnaw parce que momu ñu ci seen bop ndax Macky Sall daf leen naj fo xamné ne sañuñu def laka sudul lu lu Macky Sall bëggul loolu tax Habib Kan ñu ngi lay ma nuyu mention spéciale parce que bo sañee taxaw di wax librement ànd ak ñun librement fi nga xamné ñu bëri dañ leen xoxatal ñu dellu ginnaaw faw ñu gërëm la sargal la xam ne gor nga donc ñu leen di di daje le 23 janvier comme niñ ko waxee incha allah match bu mu tax ñu bañ a voté ji match bu tax ñu dara bañ a voté ji benn yoon bu ñu gañee ñu ngi ñaan ñu gañee Coupe d'Afrique bi bu ñu gañee Coupe d'Afrique tamit du tax ndóol bi dellu ginnaaw du tax chômage bi delu ginnaaw du tax xeyu xalé yi am ñu am ci solution du tax xalé yi jang 25 par université par chambre université lolu wàññeeku du tax poste de santé yi am pajukaay lu koy tax moy ñu changer politique bu bon bi donc ñun suñu coupe d'Afrique ak suñu coupe du monde moy élection il nga xam 23 janvier avec élection législative et nar ak élection ndax s'il vous plaît ndax gagner coupe d'Afrique te nekk le 25e pays parmi les 25 pays les plus pauvres au monde mon sens Mané, ne yàlla nañu gagner coupe d'Afrique de waaye bokk les 25 pays les plus pauvres classement boobu moo am sens ñaar les pays au monde Vous nous avons pays au monde 200 pays 200 nations Nous, ñu bokk les 25 les plus pauvres coupe gagné coupe d'Afrique bobo ak coupe du monde bobo gagné Moi, tax les jeunes la a gagné ci Coupe di dem ci mi Moi, wala tax jël doomam bu am ans bu Europe un bon footballeur

am nañu xarañ gi dinañu yor senegal ci yoruñ bu gën a rafet loolu lañu ñu war a coupe d'Afrique boobu ak coupe du monde boobu mooy 23 janvier. kon nag boog te boobu sénégalais bu nekk joueur la <laughs> kon nag boog mu ne ma bulletin bi gars yi wane nañu bulletin bi. dama koy wanewaat parce que bleu yi dafa bëri Macky dafa jël ay gars yu bari ne leen dem leen ngeen. xam ngeen bu ngeen demee dakaar gis Mame Mbaye Niang ak Ablaye Daouda di di jogante xam ngeen loolu Macky moo a jaar waay gars ah parce que euh, kii Mame Mbaye sama boy sama rakk la ah. ci kër kër Macky lay reeree saa yu ne Ablaye Daouda ah Ablaye Diouf borom corona bi moo ne woon le 32 mars 32 mars di lay fay affaire yi kooku kuy wax le 32 mars moom bu ñu ko dénkee mairie Dakar mooy problème am na. ñoo ñaar xam nga bu ñu nekkee di jongante Dakar Macky Sall moo ko lijjanti loo tax liste liste yi tamit bëri na ay bleu am na benn bleu nee nañu bunt bi la tudd man damay wax bunt boobu bu ngeen ko jëlee àllaaxira la ñu yóbbu. bii mooy bleu bu bu bi bleu bu noble bi. mu fan bi ngeen di dóor gars yi ñu dem tàbbi géej Sangomar fële wetu Fatick géej bu nekk wetu Fatick foofu dañ leen koy dóor pour fan mu tàbbi foofu moom mag ñu nanguwaat suñu réew ñu leen gërëm di leen sant